seytaane ñoo ko rëtal jatañ tëral putam ren di suuli ci pax askan la wow géeju xikma xam ñoo ko gis di mel ni ki ci xam gu réer du ñoo ko dëtëm gis di ñu mel ni ki ñoom ci xam gu réer du ko rax askan la wow jëf ju sell ñoom rek ñoo ko matal gis di ñu mel ni ki ñoom ci topp buur la mu wax askan la wow seenu topp gàccal na waami kuréel gis ci ñu mel ni ki ñoom ci baax akum mën a jox askan la wow ay abaaxilin ñoo ko bëril ku ne ci ñoom mat na sëkk xut bu neema lu tax koo ca seeru day mat sëkk mat la mu doon ci xam-xam ak taalibe yewu ba deesu ko nax li lee waral suñ jiitu woon waroom ngir yamane ca seeni mën xëj la deesi garganti koo di ca dox danal yoneen ñoo ko doon ngir ne maam la ci ñoom te sët yi ñooy doon ni maam wolof lii bi du nax maami sëriñ bu soobe ak soxna jaariyatu mooy xayru man fil araadi di wax ak dox ma buso sëriñ bu ma buso ga faatimatu la way ba tax ji doona ca ñoom mu doon lu fa sax laakin na big doona du wurus du dërëm du woore itam koddaay itam du ko duy daabaaki koddaay itam du ko duy daabaaki fiiri duy daabaaki piiri tabax laakin na jub dona du wurus duy dërëm du woori duy daabaaki piiri tabax xam-xam la ak diine teggin yu féew yu ci ngor ak jikko ju sell te yaa xol bu mucc ci nax nangoo liggéey boole ko jaamu yàlla ju lay taayam di sunna ñi seeni jëf na sab fa hahuna tawaqaftu ngir géej ma nee su ko jeel ñii géej loo ca wax wax mu des na ñuy war a nax na buur bi aar sàmm leen feeg fu ñuy mën a jëm te seen kanay ndono yi mu faaw ci max xéewal yu tey ànd ki cant buur joxe leen ci barke Sëriñ Tuuba mii ñu mu wax